dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien l'observateur les échos la turbine sud quotidien yéenekaay yépp xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu diwaanu mali ci coup d'état bi nga xam ne moo fa am ni ki démb yéenekaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal naa ñu mali jamono ji pëcc xoona loola ab coup d'état moo fa am ba ñu teg loxo njiitu réew ma di Ibrahima Boubacar Keïta ak premier ministre am ak doomam di Karim Keïta CEDEAO ñoom génn nañu ab communiqué di sàkku ci ñi nga xam ne ñooy militaire malien yi ngir nañu daal di delloo siwaat seen xel daal di toog daal di waxtaan ndax ñoom jàpp nañ ne maanaam loolee moo koy lijjanti yéen kaay gi du source amu xëy di ñu xamal lan ñu union ñoom nag ñoo ngi sàkku teg loxo gi nga xam ne maanaam teg nañu ko loxo Ibrahima Boubacar Keïta ñu daal di koy teggi journal bi nee na njiitu réew Mali di Ibrahima Boubacar Keïta ginnaaw bi ñu ko tegee loxo maanaam daan nay tekki ndombal tànkam tas li nga xam ne mooy assemblée nationale ak gouvernement ba yéen kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy soldat malien yi ñoom nag ndax dañoo bëgg a jiite li nga xam ne ma sampablaaj yéen kaay gi di vox ñoom nag mer nañu ba maara détaal yi daan nañu tëj seeni frontière ba pare nag di tànkaafu ñi nga xam ne maanaam ñooy militaire malien yi ba pare di wax ne dinañu leen teg ay daan journal bi nee na comité international bi ñoom daan nañu naqarlu bu baax a baax li nga xam ne maanaam moo xew ci diwaanu Mali waaye nag li nga xam ne moo am ba des askan wi dëkk Mali ñu bari si ñoom kontaan nañ lool ci Ibrahima Boubacar Keïta ak ni nga xam ne moom la soldat yi doxalee ak moom yéen kaay gi di Sud mu xëy di ñu xamal na ñu Ibrahima Boubacar Keïta daan nay tekki ndombal tànkam tas assemblée nationale ak li nga xam ne mooy gouvernement ba yéen kaay gi mu ñu xamal laan ñu waa CEDEAO niki suba ci alxames ji danañu amal li nga xam ne mooy ab réunion colonel Sadio kamar jamono ji moo yore réew ma maanaam mooy homme fort bu Mali réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal laan ñu Emmanuel Macron njiitu réew France woona ay njiitu réew yu bari ji su région bi woona Alassane Dramane Ouattara woona njiitu réew Sénégal di Macky Sall yéen kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal laan ñu Mali niki démb ba joxoo woon na lool li nga xam ne mooy marché yi ak banque yi administration bi lépp dañu ko tëj yéen kaay gi di mu ñu xam na nañu révolution populaire moo jëlee Ibrahima Boubacar Keïta ci bopp réew Mali askan wa nga xam na ñoo dëkk Mali jamono ji nag ñoom ñoo ngi jubilé yéenekaay gi di Dakar Times mu xëy di ñu xamal nañu crise politique bi nga xam ne moo am Mali loolee moo yóbbu Ibrahima Boubacar Keïta waaye na kiris politique bu ni mel du ñu wax guléet ne ñu gis ko ci déndu Afrique ndax gis nañ lu ni mel ca Algérie ak Bouteflika gisoon nañ ko Burkina Faso ci Blaise Compaoré tey ji nag Ibrahima Boubacar Keïta maanaam moom moo aye waaye nag njiitu réew Mali ak gouvernement ba ñoom nattuñu woon maanaam xadar bi nga xam ne askanu Mali amee woon nañu ko lii nga xam ne moo xew Mali bëri na ay observateur yoo xam ne maanaam bettu leen woon benn yoon ndax Mali demoon na ba nga xam ne mën na ñoo wax ne amut ab gouvernement amul assemblée nationale amul yoon amul insécurité Ibrahima Boubacar Keïta ak doomam rek ñoo fa nekkoon di buum di buum mi maanaam bettul kenn réew moo xam ne maanaam kenn gouverné wo ko waaye nag li nga xam ne moo xew ca Mali doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne fu ko waaye natt daan na koy passé Ibrahima Boubacar Keïta soldat yi bi ñu ko jàppee ab la ñu ko jox aku big na ko bindal sa démission la ko daal di bind ñu jox ko micro na ko waxal yéene kaay gi nag daat nay wax ne am na ñaari dëkkandoo yi Macky Sall yoo xam ne teg nañu leen loxo di Ibrahima Boubacar Keïta ak Abdoul Aziz mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon njiitu réew Mauritanie ndax jamono ji ma ngi ci ab garde à vue yéene kaay gi de mu xëy di ñu xamal lan ñu ndax li nga xam ne moo xew ca Mali maanaam instabilité ndax mun ta xew ci réewum Sénégal bu ñu sukkandikoo ci professeur Maurice Soudieck Dione moom nag la mu xam le nee na mbooleem loo xamante ni rek askanu Mali ñoo ngi koy tuumal Ibrahima Boubacar Keïta maanaam ci yorinu bon fii ci réewum ñoo koy koy tuumaal ki nga xam ne mooy Macky Sall yéen kaay gi ba tey ñu fekk fa professeur Moussa Diaw nee na la nga xam ne moo xew Mali balaa fay xew-xew fa mën naa xew ci réewum Sénégal ndax ingrédient yépp ma ngi fii te nag maanaam mbirum ñetteelu mandat moom la ñu war a jeexal Assane Samb xëy jël xalimaam daal di wax ne militaires yi nga xam ne ñoo nekk Mali li nga xam ne moom lañu ñu def maanaam du seen cër militaires yi li nga xam ne mooy seen wareef dem ci caserne yi maanaam de défendre ñi nga xam ne ñooy askan wi waaye nag armée malienne du ñu wax guleet ndax nag jikkoog borom pax lii yàgg nañu ko nemmeeku fi nga xam ne maanaam moom mooy Mali yéene kaay gi du l'observateur wax ci Ousseynou Diop mi nga xam ne ni ki démb attee nañ ko moom mi nga xam ne moom lañ doon tuumal ne moo rey ab taximan 2016 ci Yoff tëj nañ ko lu toll ci fukki ati kaso ak juróom waaye nag yaayu taximan bi ñu rey moom nag kontaanul benn yoon ndax jàpp na ne Ousseynou Diop mi rey doomam maanaam dañu ko waroon a tëj li des ci ak dundam yéene kaay gi di Les Échos mu xëy ci dialogue politique bi nga xam ne demul cëng dikkul mbay lar général ñaam mi nga xam ne moo ko jiite ak ñi mu àndal ca ba la ñu jëm statut de l'opposition ak ki nga xam ne moo koy jiite lu jëm ci wàllum wàccoo dëppoo ak calendrier républicain bi nekk na loo xam ne bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne lijjanti ko te na leen loola lu jëm ci audit fichier électoral bi bindu ci liste électorale yi loole nag ak yeex gi nga xamante ni gis nañ ne yeex na ko loolee mooy firndeel ne élection locale yi dañu koy dàq réew mi ko du cee mu ñu xamal la ñu Ligue des champions niki démb Paris Saint-Germain daat nay dem final ñoom gànn géeye yéen kaay gi nee na Barcelone mi nga xam ne Bayern nu dóoroon na ko dóor yu metti dóor yooyu léegi ma ngi def effet ndax ginnaaw bi ñu dàqee seen entraîneur bi ki nga xam ne mooy Abidal nekkoon directeur sportif bi moom tim daat nañu koy dàq yéen kaay gii di sunu làmb xëy samp ab laaj ne Gris Bordeaux ndax bu janoo a Balla Gaye 2 mën na koo defal affaire